waaw asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen welcome back suñ émission sportcast deux cent vingt et un on est trois malades de sport ñoo reen ñu wàllu leen ko waaw man la Mamadou Ndiaye comme d'habitude waaw avec Cheikh Ndiaye ñu koy naan CJ lu bees
waaw jaajëf gars yi maa ngi leen ziar di leen talal seen épisode bu bees bi te épisode bi jàll nekk mu fi yoon donc dama leen ni souhaité bonne année bonne heureuse année di leen ñaanal ku nekk jàmm te bu ñuy déglu moom année bi dàq année bi passé te di la ñaan di leen ñaanal réussite quoi.
jaajëf yéen tamit ngeen ngeen bàyyi daw épisode yi ah. man kat maa fi dawagul épisode yi yow ñun ñaan yow ak treize ngeen bàyyi daw épisode yi ah. waaw.
ah neex. dama ci tontu dama ci tontu saa yi.
ah man man kese daal maa fi dawagul épisode. waaw man maay man maay kii man maay kan sax an ban heure moo dul blessé jamais waaw man maay Koundé every match waaw ah ak treize treize lu bees gayen waaw sama gars maa leen ziar bu leen bëggee di leen def seen wàcc waaye ñu baax ngeen dalal jàmm suñu épisode bu bees comme ni nga ko waxee rek yow bu mënoo manqué n'est-ce pas ah yaa ngi zéro donc ah déet loolu bu si dara léegi ma commencé manqué léegi kii nga quoi yow continue quoi xam nga continue manqué su ma manqué ngeen gérer ko sana rek booba si de mooy présenté voilà comme que tey liga amul ñu daal di njëkkee si Premier League bi rek waa big match bi moo nekkoon entre waaw loolu sax nekkatul big match ndax United moom daanu waaye nag derby la quoi derby du nord entre Liverpool ak United ah ah CJ alors CJ gain ah moo yow yow ban prévision nga joxe ah big moo alors.
ah big moo alors la.
ah yaa fi waxoon man United day perte de man.
kan moo ko waxul loolu ñëpp ko waxul. ah déet loolu kay loolu kay c'était universel. ah man United sax bi nees bi bi nees bi commencé gars yi fan si United ñu ngi naan heureusement noonu ñu reporté match bi waxoo fi dara. waaw yow yow yow joxoo prévision yi moom.
bilaay waxoo fi dara kay.
yow yow joxoo prévision yow yow amul.
mais bu ñu wax quoi yaa ni woon.
waaw et alors door ak what's the difference.
ñu ñëw di waaxu gars yi quoi di arabtu nag mais.
non non yow yaa fi joxe woon prévision bu bon.
non c'est que problème bi mooy Liverpool. ngeen dañoo sous-estimer United.
non par lan ma ne yaa bàyyi te xel bi.
non man teguma benn xel bi.
yaa ngi doon dañuy door Liverpool Liverpool.
waaw dañuy door Liverpool léegi Liverpool.
tey nga dañuy door United nga waxoon.
et après United doorul et après.
waaw lii du match déjà.
neewoon nga ne Liverpool day dugg.
match bi c'est pas aussi important. Liverpool moo ñëw gagné c'est défenseur important simple na.
défenseur non lii.
non ba pare tar bi dem noonu. gars yi gars yi gars yi ñu fonkee man ak subi kii di ñii di lii waa Liverpool ñii di Man United ñu fonkee non match waa bi.
United rek ñoo ko nekk di garaaw mais.
rivalité non rivalité rivalité bu ñu bu ñu am saa ñaari ci yi quand même.
ren moom United moom amul droit nekk fii naan day rivalité ak Liverpool franchement ren moom.
ba tey ah.
ren moom niveau yi bokk Liverpool daal moo nekk fii di di di foowe match bi défenseur yi di ruube. Robertson ak Trent Gayen ah di di wëndeelu Mm.
terrain bi di jaay ne non ñun ñoo nekk première sa- championnat nangam sangam dañoo am chance dañoo nar a perte sax. Maguire Gayen fu mënoon dóor kon heure bi ma.
ah yow Treize noo gisee noo ko gisee man moom d'accord d'accord ak yow mais yow Treize bëgg naa dégg Treize ndax man xam naa ni Treize luñ ci nar a wax ñoo xaw a ndiroo yow mi yaa nekk naan ay Liverpool ñëw poye match bi mais.
Liverpool du moroom waa Liverpool nag nekk nañu wax non dëgg.
big moom big moom saa ay waxi big moom saa.
non Liverpool du moroom United.
waxi big moom.
Bon, moom nag.
sax si ko dugg parce que. yow en tant que waa yow United Liverpool maanaam United bu newoon daara sax du tee match bi neex. enjeu bu match bi am mooy loolu dara du ko dindi dara mënu ko dindi si yaa ngi comprendre moo tax match bu neex la newoon voilà man moom gisoon naa ne moom match bi dina tar ah waaw si ñaari côté yëpp parce que Liverpool moom saa yi ah yaakaar naa ne moom avec le temps moom ah jot na de war naa focus tanu de bu di toon Maguire moom saa yi instant yii moom leneen la ñuy wax quoi Maguire moo leen sauvé mais tamit United tamit gaañ quatre défaites lañ tegale woon na donc soxla woon na réaction quoi benn instant te aussi du ma ne am nañ ko carrément mais def nañ seen match ci boo xam ne gaañ gis naa ne daal saa yu Bruno Fernandes di joué moom beneen United laay am au moins dinañ créer occasion mais Bruno moom bu joué wul moom saa yi duñ joxe dara te gis naa ne Bruno lañ gën a yab Bruno lañ gën a yeb United.
ah Bruno kan si Bruno gaay non xaar Bruno problème mooy day def benn match bu toj ah ñëw xam nga indi volonté indi indi xadar bi lépp prochain match mu ñëw di ruube moom tamit.
moom leer quoi. ñu ñëw ñu ruus ko wala nekk foofu di kaas.
waaw wala ñu ñu gis ko wala waaw lu leer nga wax nag Bruno moom mooy Fernandes.
capitaine bi war a joxe exemple bi tamit. mais moom Mais- ngeen saa xoolal match bi mu jee contre Liverpool match bu rëy mais prochain match fii la nar a ñëw di di wëndeelu yaakaaruma ko de suñ ko xasee nag mu naan ay. naan- yaakaaruma ko de maanaam équipe bi ci boppam moo dul joxe dara benn joueur rek mënul def différence quoi. soxla la ñëw joueur yëpp joxe dara.
mais fi nga laal foofu moom saa yi neex na ma trop ndax Bruno Fernandes mooy vrai exemple équipe bi Man United genre ñoom di lay leer ni ñoom li ñuy def ñoo ko tey quoi ndax ñoom su leen neexee nekk grand équipe su leen neexee nekk équipe boo xamante ne ay compétir ci top 4 yi ndax match bii nii fi nee na ko saa yi match bii waroon nañ ko waroon nañ ko gagné mais Bruno Fernandes saa yi grand match la def ñëw def mel ni xam nga wane wane boppam quoi ini valeur am même sooy xool benn instant Dalot quoi Dalot tamit def na grand match même su fekkente ni Trent Arnold je sais pas euh, xam naa ni daa xaw a perturbé quoi moom moom tamit ak rumeur yu nekk euh, rumeur rumeur mercato yi mais mun naa ni kii euh, Amorim Amorim da ngaa préparé tactiquement quoi match bi te man man d'accord ma ci li nga wax big moo ndax man moom gis naa ni Man United euh, da moo mérité quoi moo mérité ndax depuis première minute da ngay gis nit ñi dañoo indi xadar xiif dañoo indi beneen ne réaction lañ soxla woon comment- quand même kon si ñaar ak yéen seen match yi nii yi ñuy ñu perte match yi jàll donc man ya xam naa ni gëm naa ni que match bi moom xamoon naa ni nii lay demee quand même waxoon naa ko fii nii Man United day dóor wala am benn match nil te kon kon si ni ma ko waxee rek Man United moo ko mérité waroon na ko waroon na ko gagné te Amorim nu ngi ko préparé genre ci àll yi la ko la gaay la sëpp gaay yi quoi da ngay gis ne li tamit ma koo gëneen moom duma d'accord ak yow ni mu waxee match nil match bi neex na équilibré na ok mais United moom jéew fi lu mu war a dóor kii xam naa occasion yi Maguire ba tax ngay wax mais franchement non nekkul nekkul occasion mi ko ayer bi yëpp de kase de man damaa seetaan match bi depuis bés fin bokkuma yoo xamante ne Ah, kan moo ko fi seetaanu? kan moo ko kan moo fi seetaanu match bi ah yow yow mi doon xeeb eh, match bi kay naan Liverpool dee doon xam xam naa ni bu baax seetaanoo match bi lépp laa seetaan lépp début ba fin comme d'habitude ñi ñi Man United. yow déjà déjà Salah Salah moom saa su laalee pal quatre quatre personnes ñooy ñëw di ko sëb yow Salah su doon penalty bi du du dugal ci match bi loolu moom lu leer la. Luis Diaz tamit euh, beneen saa dañ kaa xaw a tëj yow da ngay gis ni Man United seen euh, mécanisme mécanisme anu Amorim ñu ngi koy commencé à maîtriser quoi yow da ngay gis ni Bruno Fernandes day ñëw attaqué du dem ci entre ligne entre Trent ak Konaté foofu lañ gën a am difficulté euh, Bruno Fernandes ñëw wàcc di kii même défenseurs yi tamit ñoom comme bi Martinez bi rek kenn ki su yéegee mais day am liberté ak yéeg quoi moom Martinez moom moom lool loolu baax na ci moom ndax euh, su kenn ki yéegee di nga xam ne yeneen ñaar ñi ñuy des de Ligt ak Maguire ñi ñuy des affaire yooyu Mazraoui Mazraoui mun naa ni offensivement de indiwul lu bëri mais mun doon gérer côté côté défense bi quoi tamit kenn koo xamante ni doxul rek mooy délig ak seen sa attaquant bi moom Højlund Højlund moom saa yi saa yi Højlund moom dañ kaa ah déet déet déet déet déet déet xooyloon am na Jox ko am na dara.
am nay occasion de xooyloon occasion Jox ko raté dara.
na occasion nga yow.
waaw mais au moins moo ko fa am lan mooy au moins boo ko fa am.
my friend am occasion dugal na si.
Zirze Zirze bi mu duggee lan la fi def yow maanaam ñi nga xam ne moo commencé match bi.
waaw wax ma Zirze bi mu am dugalal mais Zirkzee amul am dugalal kii am dugalal am.
à part que Zirkzee- Zirkzee fin de temps nga la dugg Zirkzee quatre-vingt-sixième minute la dugg loo ko mën a def foofu ci cinq minutes dix minutes dëgg la de.
my friend déglu ma fii bàyyi leen oylun yéen da seetaan nga ngeen- match bi da wala.
ngeen a yëpp oylun da ngeen da ngeen a yëpp oylun ni la non non déedéet oylun du amul la Milan bu gën a garaaw Oilun.
oylun mooy attaquant bi ëpp euh, conversion rate Chris Wood sax ci- moo ko dàq, ci moo ko ci- dàq.
ci ci Premier League moom moo ko gën a aay garaaw wala.
maanaam oylun mën ngaa ne du bëri occasion mais en général day C'est un dugal top c'est juste parce que dafa raté occasion léegi léegi léegi bu nga def non dëkk si de dëkk si de déedéet loolu moom loolu moom du ko daal Oilun de lu dul jàpp terrain bi ndaw Oilun xale la vingt et un ans Oyun Oilun Oyun kii di Fantaay ka kii di Konaté saa yi dañ ko doon euh, traité comme xale. dañ ko doon bully.
yow yow, yow, yow doo ma déglu.
Kaani ko fële.
yé yé déjà yé ya maanaam lee woon ne Oilun du attaquant mooy gars yi duñ ko duñ ko doon bàyyi xel sax yenn Xanaa.
zéro la nga doon bàyyi ko Oilun ah Eh, mais c'est normal parce que Liverpool moo mën United Liverpool ak United du du niveau.
question de Liverpool contre United Vraiment.
question de attaquant la contre défenseur yi non non benn Oilun moom kese mënul gagné ci. euh, waxuñu moom ko si Van mën Van match bi Van Van Dijk ak dañoo wax ne mënta.
Oilun ah boo doon koo xam ne ah maanaam Gyökeres daal yàlla na ñoom United daal laa ñu dàq Oilun Lan?
Oilun moo fi- yàlla tere man Eh.
moom yéene ko ko moom.
lan def daal ñoo ko def ñoom Amérique daal fii la ñuy daal xoolal Zirkzee daaw daaw moo ngi doon toj seen non yaay.
c'est que Mu ñëw tey ñu système non système United arrangé wu non man système ñaari coach yi boo xam ne système yi kenn ku ne non bokkul bokkul sa système contraire keneen ki.
non bokkul même système Amorim contraire suñu thème te non non système non man Premier League ñaari arrangé wu ñaar Zerkzee yëpp dox.
Premier League arrangé wu Zerkzee club bi arrangé wu Zerkzee non ok je ne
non mi ngi koy jënd waaw mais United ñoom dañuy jënd pour jënd mais duñu jënd jeune boo xam ne soxla nañ ko ñoom dañu ay def lañu ñoom dañuy gis jeune bu toj rek nu ñu jënd la duñu xool ba xam jeune bi dina adhéré rek système bi wala déet mais- ndax Zerkzee di cuune Zerkzee footballeur la actuellement nii daa perdre confiance am rek ah déggal déggal Yaa ngi déggal bëgg na- déggal ba yow Tuuti na si yaa ngi kaw.
wax kon confiance ba léegi.
mais saa yi moom mii di wax sax moom xam na ne Zirkzee techniquement moom moo tene moo tene ñu kii. Oyun naa la moo ko gën waaw techniquement mais Oilun moo ko gën nekk neuf moo ko dàq dugal fuuf fuuf Oilun day dugal Oilun daaw moo nekk meilleur buteur United.
Zerkzee maa ëppoon waaw yow bolo
loolu même problème bi Oilun moo nekk meilleur buteur United daaw nu mu def moo tax it demuñu fenn.
bu ko nekkul sax dañ kaa wax dara ah lu tax ba rek xaaral ay raison ñoo fa nekk ay terrain lu tax
raison Mathieu daaw joué na match yëpp presque match yi yeeg yi yaa joué du si yëpp du départ lu tax lu Rashford nekk yow neewoo fi de lu tax Rashford nekk yow mi ñëwoo la xawle bu leen ma sonal bàyyi leen Oilun primo secondo mooy yéen ñi ngeen di naan ay no système wu Amorim mi ngi commencé dëkk yi United j- j- mokkalul dara ba léegi même équipe prochain match dañ leen di dóor comme d'habitude wala boog ñu ñëw defaat fa comme c'est que United dañoo jël match bi yanu ko mooy mi comme bi Milan di dóor Inter seen derby première derby bi fa kii y a deux mois yi non mais Milan booba système bi dara baaxut fi mais joueurs yi ñoo ñëw indi xadar ne kay benn bi la benn bi la ñoo bokk.
konante la rek non non match inter Milan bi passé woon boobu Milan dafa ñëw maanaam xa- comprendre wul dara si yaa ngi dégg mais United fii dafa ñëw pour jouer contre Liverpool Liverpool indi ay armam United indi ay armam ñu jouer carrément match bi neex match bi tàng bokkul de non match bi neex na match bi tàng na mais wax ji mooy United dafa ñëw ne lii derby la et cetera kenn duñu dóor duñ ko nangu quatre défaites consécutives la ñu kii moo tax joueurs yi ñëw joxe cent pour cent yaa ngi dégg mais prochain match suñuy football ak équipe bu ndaw joueurs yi duñ indi motivation boobu moo tax ñu leen di dóor parce que ah système bi système bi ñëwagul man pour man système ça bi dépend ñëwagul.
si heure yi muy teg rek gis naa ne moom United li CJ doon wax sànq li ñu def yëpp ñoo ko tey ñoom su match bi ñëw jaree ñu ñëw indi non man gis naa ñu di ne daw xoola xoola xoola ay Bruno Fernandes gars di daw terrain bi yëpp ah.
Bruno nii la mel ay ay ay daloo di ñëw di joxe lépp daw boobu léegi nit beneen mais gars yi mooy loolu quoi su suñuy football équipe bu ndaw gars yi di wër terrain bi di dox nangam sangam suñ leen dooree ñu naan noo dugg na fii génn na fi am bëgg koo xëpp Amorim.
mais yéen Alexander Arnold Gayen gis naa Roy Keane di ko di ko kii de di ko croisé dem na Real ba pare kooku moom.
mais ah dama moom gis boppam Roy daaj ko fi taawee.
ku xel bi nekkatu fi moom dem na ba pare. isaan xam naa janvier bi lay xaar nii nii balaa mercato bu jeex mu signé.
non c'est que c'est que kay semaine passée maa ngi doon dégg tamit euh, eh, xam nga rek kii kii Real Madrid bi nu mu tuddee sax Florentino Perez moom moom ah, affaire ko moo ko neex moom nee na day ñëw di joxe benn benn vingt millions xaw ma vingt cinq millions pour jënd Trentanel ci hiver loolu ban sens.
transfert hiver bi xam naa loolu moo ko xawoon a perturbé avant match bi Di- xam nga dégg yéen yi avant match yi tamit dinañ xaw a perturbé avant match yi toll nii moo tax dem gisul dara mel ni nekkoon ci biir terrain bi kay sax
Florentino Perez moom amul sens muy ñëw jënd trente et un bi xam na ne su saison bi jeexee mu ñëw gratuit. looy dox di fay ay vingt cinq millions.
su ruube rek mu ruube rek non Trent moom noonu la rek Trent temps Trent moom défensivement tane woon na parce que mooy loolu. Slot doon na ko si doon na ko si encouragé mais su ko bàyyee noonu moom Trent xam nañ ne xam nañ ne mel waa entre Trent Trent ak ak Robertson moom match bi xaw ma ko si tane sa morom chet non Trent fexe na ba ah ay ay daaloot ak gaay ay ay ay ay nuñ koy waxatee Martinez ay ay Bruno el boobu ñëpp a dox.
Garnacho Garnacho tamit.
waa ak Garnacho waaw el boobu kay ñëpp a dox tey. je te te te non mooy loolu quoi ah Liverpool baax na Liverpool moom instant moom anyway moom moom raw na gaay lu bëri instant moom li match bii du problème waaye nag mooy loolu quoi comme que Arsenal daa match nul.
xanaa Arsenal saaka nekk fii c'est normal.
jom amul ma.
Arsenal eh gaa Arsenal nee nañ penalty bi du penalty ah gaa yi ngi kaas de.
ah non pour man moom penalty yi moom daa soft moom wax dëgg yàlla.
ah ay mbëkk man penalty mbëkk moom loolu moom maa ngi koy soo gis de.
maa ngi solo jëkk moom wax dëgg yàlla.
non yow moom anti Arsenal nga yow moom. duñ Reef wax moom wax.
nee na penalty la.
Allez loo bëgg a siffler foofu.
Arsenal lay bañ a gis foofu dara am. ñu doon daw bëkkante rek.
Saa nekkoo contrôle de ballon di doon seera bal bi naa di mbëkk mbëkk saa yi ñëw.
damay bëkkante loolu loolu.
Non non doo mbëkkante de saa dina jéem dina jéem a mbëkk bal jëkk ko bal.
pourtant pourtant soo xoolee replay yi dafa mel ni laal na bal bi sax de pourtant xaw ma nag ba xam avant.
du ñàkk nga laal bal bi parce que ba non mais du ñàkk nga laal bal bi parce que bal bi balam du bal bu tuuti bal bu rëy la boo demee laal contact bopp sër bi du ñàkk nga laal bal bi mais maanaam Saliba foofu jërëjëf ñu dugal boppam nañu waxante dëgg.
ah Arsenal moom.
loolu loolu Gabriel ma woon mooy def genre météo mais Saliba nga kan la mel nii waxante dëgg.
non loolu moom du penalty booy li ñu wax.
man de bàyyi la yooyu.
xaar mais nag Arsenal moom baañu ci loolu di kaas.
too soft. moom moom soft Arsenal nag warul warul warul warul toog foofu rek naan penalty bi penalty parce que yow.
non mooy déjà classement bi gars yi classement bi quatre ñaari trois trois axes cinq milieux terrain rek ak ñaari attaquant non cinq cinq milieux terrain militaire défensif. militaire ñoom ñëpp ay militaire défensif saa yi.
noaneer yi nga xam ne milieu terrain bi taay el bi la ko jox ne ko ground yow laalal saaka bi laalal saaka bi waaw mën na see foofu mais foofu du place moom moom diis man moom sax maanaam- changement boobu moom comprendre xaw ma xaw ma noaneer yi daa blessé woon xaw ma waaye boobu moom comprendre.
Arsenal kay yàqu nañu.
ndax ko ko ah bon noaneer waaw ñoo koy yàq nañ ko. ndax Noaneer côté yi boobu ay ñu doon dox de.
Arsenal kay Blake Dara Williams place dafa à bëri gaay mais ah Arteta mi kami classement mi da ko war a bàyyi partie latérale ak yooyu moom dafa bëgg yooyu nag ah naa la yàqal leen de.
te- te- te- parti milieu moom rek a fa dox de. bëgg a dégg dëgg. xam nga tax mu ngi insister latéral nag pour jéem a kay seedoo kay seedoo.
Rice nag
kooku man maanaam déggoo ma wax xam nga ma koy laaj.
ah déet Rice nag na wala doxul joué tur sax ah déet mi ngi joué kay lan ma mi ngi joué.
mi ngi joué kay ni naar ma bon lool.
Rice dox na wala doxul match bi pass fan la doxee.
dox na wala doxul liu bannière bi ko ko créé ma xam tànga tànga tànga penalty bi au lieu que mu jël bal mu ne fa naa di mel ni mongol kooku maanaam dara jubul.
yow su Rice su Rice doxee doo ko wax jamais Racine Ba ni naar na.
Rice wala progressé di régressé. kon loolu mooy dox.
Rice de yow moo Racine Ba tam ak Racine ji la mooy différence.
Huh?
li moo doxoon lu jënd ko.
waaw Racine Ba yi nekkoon na meilleur moo nekk ci anglais Racine Ba.
yaa ngi dégg yow yow moom te danga- Anderson sax daan na fi nekk milieu milieu.
yow yow dimbali ñu waay milieu Anderson ngay tëkkaleeg Rice eh CJ wax la kii waay mi ngi tëkkale Anderson ak Rice da nga di daaw boo neew ko milieu milieu Angleterre man la Anderson Anderson sax neewoon na ko fi. Anderson MVP la fi jëloon donc loolu.
non non Anderson MVP bi tax loolu rek politique la. Anderson nekkul woon sax MVP wu Liverpool loolu li tax ñu jox ko ay politique la yow xam nga ko sax waaye Rice daaw Rice daaw ak daaw jéeg mais aussi te yow mi waxoon.
Tarkal.
euh, Arsenal day gagné championnat bi noo noo gisee Arsenal tamit. jusqu'à Eh présent.
man attention nag attention man entre Liverpool ak Arsenal. premier ah
premier premier ak deuxième. man man fii nii wuy ma.
vision yi lan la waxoon Attends attends attends attends ba- attends bàyyi ma wuy yeggali man fii man maa fi gën a jege prévision kii ñëw na fi eh, wax fi man City kenn xamul man maa fi gën a jegele prévision de.
moom waaw Liverpool la wax boo paree ko donc gën a jege léegi nag yéen-
mais mais Arsenal moom- Arsenal épisode baa ngi YouTube ñu dem VAR kay. ragatu loolu. man entre Arsenal ak Liverpool. mais non ada bu mais Arsenal moom bu leen ci génn ndax moom ñoo moom ñoo ñàkk jom quoi mais benn instant euh, ñi gérer ren ute naa ak ñi gérer euh, daaw quoi ñu doon gérer daaw ndax léegi moom dañ euh, dañuy gis ne ñii dañu ah waaw ay corner dañ ba pare di jaar géewuñu kon daaw amuñu fluidité kon daaw mais de li leen intéressé mooy am efficacité quoi.
Odegaard Ah.
nekk.
léegi selon toi la moo tax fluidité bi manqué quoi ci milieu bi.
Odegaard moo fi nekkul.
non fluidité saa yi Odegaard Odegaard nekk ku am forme. ba pare ba pare ñoom ñoom côté droit bi rek la ñuy xool ñoom côté droit bi rek la ñuy gérer te loolu moo leen kii. saa yi su kenn ki manqué entre Odegaard saaga moom la ñuy réer.
maanaam problème bi daal maanaam pour gàttal ko xam nga lan mooy problème bi.
non ci kaw ci kaw kay saa yi. yaa ngeen doon wax à part ci kaw sax à part ci kaw sax.
kii bi moom mi doon wax Gabriel Jesus Gabriel Jesus ñu ngi commencé fay de. bu demee noonu moo tax moo tax ni Aves.
ah.
xaw ma fay xaw ma ñàkk fay moo tax ni Aves ba léegi.
Ames daal moo ko ëppale bii daal.
waaw Ah, booba- waaw Aves moo moo moo football ma saison bi yëpp di.
ah saa yi moo donc moo tane ndax kay moom waaw nga bëgg moo blessé football yàggul.
chaque trois match mu blessé donc moo ko tane quand même. mais ñoom moom ba léegi maa ngi wax ni soxla nañ numéro neuf moom. ah Ames neuf ba tey man li ma jaaxal mooy danga ni woon mercato bi baax na man loo ma jaaxal.
kenn laa ko woon.
ah nga wax na si non
da yóbbu vaar de.
ñaata nat la joxoon moom.
da yóbbu vaar de.
man nga nat bu kaay.
non bon est ce que joxuma leen set. naa dem xoolaat non Arsenal moom moom.
non man moom man moom benn benn kii laa waxoon boo xamante ne benn équipe laa waxoon ni seen mercato bi baax na muy West Ham ñu ñëw décevoir ma moom laa waxoon.
non West Ham man waxoon naa la ko de bi ngay naan West Ham West Ham ma ne leen man coach bi wóoluwuma ko man waxoon naa la ko de West Ham. eh West Ham en parlant de West Ham sax mën nañoo dem seen match bi ngeen.
ak Titi.
bëgg waxoon naa la ko.
ah balaa de ñuy de jàll de ci man su ma City- waxee dara ngeen mu am.
Balaa- dama ko balaa ñuy jàll ci City bëggoon naa wax ci Brighton quoi Brighton tamit pourtant démérite démérité wul de seen match bii nii contre Arsenal sooy ñëw sooy xool deuxième mi-temps yi beneen dimension la fii nii mais bëggoon naa wax tamit ci Carlos Baleba Carlos Baleba quel joueur nag like euh, genre mën naa ni période bii maa ngi koy seetlu quoi ndax moom seen match contre Brentford maa ngi ko doon xaar maa doon xaar match boobu ndax match bu tàng la woon am de xaw na ma décevoir ndax résultat bi mais Carlos Baleba moom joueur bu mag la na nar na bokk ci joueur yi gën a mag sax laa mën a wax ndax chaque match damay gis ni moom mi ngi progressé moom am na vision de jeu quoi am na il est costaud moom constant bu pare ni day joxe lépp première minute ba quatre-vingt-dixième minute moom dañ koy gis day daw di daw du mus a sonn donc kii nii c'est un joueur intéressant quoi te su ma newoon ci boor Man City bi dirigeant Man City Man City moom laa jéem a dem investir de même su fekkente ni xale la oh, peut-être risque la mais am na mentalité quoi man gis naa ne am na mentalité pour nekk ci top équipe quoi.
City est-ce que dina doon ay bale ba. City.
ah au lieu au lieu que ñuy def dépendre seen xaalis ci ay Zubimendi kay. ngeen Zubimendi investir moo gën si zéew zéew City bi fu.
ah mais Carlos Baleba tamit am dara la de. Baleba moom am na am na personnalité bi 2004 21 ra- 21 ans rek la am am na personnalité am na vision de jeu ba pare mun mun na casser le jeu tamit yooyu yëpp mun na ko.
bu dee zone city moom. zone bi mel ni lañ gën a soxla ko benn bale.
waaw City sax moom temps yi temps yi li tax ñu commencé waat gagné Kovacic moo ñëw ci Kovacic saison bu rëy la nekk di def.
non loolu bi dam bi mu blessé rek la City commencé di dajale ay défaite comme que Rodri nekk c'est ça mais bi Kovacic nekkee moom seen milieu bi nice.
tànk c'est ça c'est ça c'est ça nga wax de. man de dernier deux trois matchs yi rek laa gis ni mu performé mais bu ñëpp Kovacic moom.
non Kovacic eh Kovacic Kovacic saison bu rëy la nekk daaw la jéewuloon dara mais ren moom saison bu rëy la nekk di def Kovacic.
Ah.
daa blessé woon nag daa blessé woon ay un mois yooyu mooy bi City di perte.
non blessure match bi kay yooyu yëpp yaa footballu. match blessure yooyu mais boobu.
match yi bi City di perte tegale ay défaite boobu nekk fi yoon.
an kay ñun doon jeu Non, kay.
nekk fi yoon de nekk fi yoon de nekk fi yoon de y'a trois matchs la ñëwaat.
Yeah.
tey nag dernier deux matchs yi City gagné nekk fi woon de moom City yi muy Non.
tegale yi defetam yu bëri yooyu premier match Kovacic yi moom nag leer laa la wax seen match contre Tottenham gée na seen match contre Bournemouth gée na seen match contre Sporting waaw gée surtout na Tottenham boobu début crise bi la boobu te- début crise seen match contre Brighton gée na yooyu yëpp gée na de yooyu yëpp Bournemouth ak Brighton yooyu yëpp début crise bi la yaa ngi dégg yooyu yëpp mo- première première semaine première trois défaites tegale nañ Waaw.
douze match yoo xam ne Match kii yu non léegi Bournemouth moo doon premier match.
waaw Bournemouth Brighton bi quoi.
Bournemouth Brighton après Tottenham ñett yooyu mooy Ah, seen Ten premier crise victoire.
ten crise bi de ten depuis ten kii kay.
mais mais mais kii bi moom City moom pour man jubu meen di continuer te City moom pour man su ma doon kii kaw- kaw gi laay defar pas milieu bi sax comme que De Bruyne saa yi mi ngi commencé jël forme non bu léegi xale lañ soxla.
mooy loolu quoi milieu bi man ñoom kay attaquant la ñu warul parce que Haaland su dugalul kenn du dugal équipe boobu loolu loolu kay la ñu war a gérer ba pare mooy loolu.
loolu nga gis ah.
ah su Haaland dugalul kenn du dugal wax na leen beneen milieu terrain moom.
ah ay beneen Grealish yi ay Grealish yi ay Bernardo ñii.
dégg naa dégg gis naa sànq ci kii bi de ñu naan Rovella la bëgg.
Robert la Rovella quarante millions gis naa ko de.
40 millions.
million. mais attends Robert la fu mu nekk laaj ko mu nekk nii, wala.
Quatre yo waaw.
ba léegi neex na Rovella seen seen rëy.
40 millions.
jaay ko Robert la jaay jaay ñu ko.
non dañ ko aal ba léegi.
non non yu Ah.
ko moom.
yu be ko moom.
mais Ah, 40 loolu millions ñu comme jaay.
ni ma.
Nga dëgg. ni ko lu Si daal na na ay attaquant la warul parce que ay Grealish yi ay Makati yi gars yi na ah ay ay Bernardo yi.
non marque di sax ni ma ko si boole. monsieur Badou.
te Makati bi ñoo dem moom heure Bob Bob daa blessé tamit Bob su- commencé woon na def saison bu rëy mais daa blessé.
Fabinho mi ngi ñëwaat de mi ngi ñëw de par nank non Savinho monté daa mas a performé c'est que bii rek la amul woon. mais dafa mais contre contre West Ham moom xaw na leen rëy moom. dafay ne comme Ronaldinho si terrain bi gars yi na ah. di teggi gars comme yi na.
Mahrez ke nga war a wax waaw waaw waaw non Savinho moonte Savinho nag saison bi nag daa daa mas a performer de c'est que moom bii moo ko manqué woon bii di forum. waaw.
bii moo ko manqué woon mais doon na passe gars yi doon na doon na kii de doon na tey moom football brésilien dëgg la am moom moom moom yoonam waaw.
Badou ah Badou du Ay, ouais.
fekk brésilien yi kon ay Martinelli yoo xamante ni moom bi terrain Martinelli rek laa mas a gis brésilien buy sëgg si bal si moom kese laa ko mos.
gars yi nee na da def pour ca ca pour ca ca nee na amoon pour ca kii quoi.
non Martinelli kay moom day sëgg rek moom day sëgg day sëgg di dem rek moom ma tey ñooy am dañuy sëgg si bal bi rek dañuy sëgg si bal bi rek.
partenaire boo demee am na mbokk pikin de xaw ma ay jaam ak yéen day dafa rek mais City moom jaruñu fay yàgg ndax West Ham ñoo xamul tous West Ham équipe bi gën a yàmbara Angleterre mooy West Ham non quelle honte West Ham ay ay Paul Crook ay ay Kudus ah joueurs yi ñëw yëpp ay Alvarez
kii di West Ham kii di Southampton kay ku leen gën a ñàkk jom amul tàmbali non Southampton sax amul joueurs yi mën naa comprendre mais West Ham joueurs yi mu am booy non.
ko jëndee lit tàmbali ko ah Somerville waaw Sam Mohamed bi waaw booy man loolu man man seen Ouais, seen c'est équipe yi seen joueurs yi même su fekkente ne amuñ kii amuñu entraîneur bu baax mais seen joueurs yi ñoo ñoo tax ñu décevoir waxoon naa la Lopetegui mi tàngul non la ko koy yomam waaw man waxoon naa la ko waxoon naa la Lopetegui mi tàngul West Ham mi mooy loolu Bon.
parce que non mais kii tamit mais Alan tamit gain Alan ni nga ko doon xas naan mooy loolu nangam saa mais Alan saa yi soo moytu moo nar a jëlaat meilleur buteur bi de.
Ah, Eh, mais waaw.
Alan- kan moo ko fi Ah.
ay moom moom moom équipe bi yëpp ñëpp kenn ko kon loolu mënul football.
moo continuer di dugal di def bi liggéeyam mënul Moom- football lii du ko mën lu dul lii mënu ko
ba ba tey ba tey ñu ngi def liggéeyam daal ah mais gain ñoo leen ci Chelsea tamit ah mais yow treize mi ngi lay xas ci prévision moom City la fi waxoon mooy gagné championnat bi après mu dem bu si biir mu ne yàlla na ko Chelsea gagné ñaar yëpp moom instant yi moom.
yaa nga ko Chelsea gagné ça veut pas dire Chelsea la- Chelsea moo koy gagné waa City City moom maa ko waxoon moom kon na mënoon dana assuré ma mën a ul benn problème baaxul City City yow Bernardo Silva mi ngi def interview ba ki dem mu naan title race is- moom pare na si moom ah xam nañ ne duñ ko gagné.
mais kooku xam nga dafa pare ci c'est parce que moom dafa gagné ba dalal Cameroun loolu quoi kooku mu ko war a jaar waaw ñoo di Chelsea gars yi eh gars yi nee nañ yéen a doon comparé Jackson ak Isaac.
waaw man dama leen di comparé ba ah Jackson ak Isaac dañuy rafet rek loolu kay moom loolu kay mooy géej gi am na ndox différence bi mooy kii de Newcastle kii ah déedéet Isaac yow Ah, c'est un Isaac.
premier un mois bi Isaac.
saa Isaac Isaac.
am ni la mu soxla which match oui neuf matchs consécutifs man non attends benn match rek la tëb mais neuf matchs nga xamante ni mi ngi dugal mi ngi dugg gisoon naa gisoon naa benn record sànq ñu ne maanaam tegal neen sept match di dugal sept dugal ci quoi record la boo xam ne histoire Newcastle kenn musu kaa def xaw ma ban loolu yi ma amoon na lesaan bu mel ni Alan Shearer bu fa newoon dugal fa quel jour oh pop Alan Shearer rek laa doon topp taa mi boobu.
débiteur Angleterre jusqu'à présent ah. attends attends attends attends attends nga ni lan loolu la wax waaw dégg nga ko.
Alan nga ni Alan Shearer rek nga doon topp taa booy man Alan Shearer moo nekkoon sama attaquant yàlla man boy am na meroon ci Shearer boy yow xanaa xanaa boy avant avant ngay jàng ngay mën non man taa mais booy donc man Shearer Shearer football moo boy.
nekkoon sama sama sama joueur à part Moss moo nekkoon sama neuf préféré man Shearer waaw dama ne Dama yow lay xeexal.
championnat italien moo la antoche pourquoi nga naan suivre ay championnat anglais.
waaw mais Shearer dafa mais attends mais loolu loolu saa yi Shearer avant Newcastle.
ñu woon di saa yi yow xanaa boy avant si jàng année wax année nga année ni deux Shearer- deux mille deux mille quatre deux mille cinq deux mille six boobu.
waaw Alan Shearer moom 2004 boobu foofu moom kii woon na foofu moom mi non doon daal Shearer Newcastle Shearer moom bi muy nekk prime am boobu mi ngi yoon Blackburn mooy bi muy gagné Premier League.
Waaw.
mais après dafa dem Newcastle. boobu am na ay trente ans yooyu mais ba léegi da doon moo doon dàq dugal booy foofu.
Hmm.
waaw yow Shearer Shearer sama jour.
pare jamono yooyu kon ni ko Trent waxee Serie A moo doon bës de Serie A ak La Liga daal laa mën a wax mais Serie A surtout moo nekk yéen man Premier League man li tax ma ko doon suivre mooy euh, Thierry Henry ak Alan Shearer ñoom ñaar kay ñoom ñaar waaye kaay ma xam man damaa yàgg seetaan football de ni ngeen nga gisee nii moo laajal soo laajee sam papa gayen man bi may am dix ans rek gayen presque xam naa joueur yëpp damay damay toog di di la limal kay di la wax joueur bi fii lay football joueur bi fii lay bêtises yi nga wax kenn du ko wax man loolu football la jot yi su ay ngeen bêtises la ngeen di wax.
yéen yi ngeen toog fi xamul naan oylu ndaa man football yow nan ngay gisee si- siiral ay siiral attaquant ngay gis yu sax man man waxuma ooy lu ñëw ci deux mille cinq ba naan dama doon Oil United moo ko gën Oil United moo ko gën si si waa kaw gi man loolu laa la wax. waaw après nag yow yow yow yéen man te Oil booy la 21 ans la 2003 la judd. loolu mu sonal mais mais Alexander Isak moom mi ngi ci forme bu yéeme mais teewul na tamit occasion yi muy raté mi ngi koy raté ba léegi moo tax ma koy comparé ak Jackson man foofu rek foofu rek laa comparé ni nga mel ni Jadon Sancho rek mën na fubal loolu mais Iliman Ndiaye la may jox Iliman Ndiaye Jadon Sancho la may jox loolu kenn du ko dindi sama bopp moom.
non Sancho borom benn match wii.
yenn saa yi nii daal yenn saa yi yenn saa yi nii daal saa yi ah eh, Isaac mi ngi dem yoonam di fi bàyyi Jackson moom non loolu la ma fi nekk comparaison.
six match wala dugalul indi woon Combien- ngeen comparaison ma ne leen lii du comparaison du ma si sax yàgg si wax. ngeen yéen a fi nekk di indi ay wax yoo xam ne amul benn sens ay ay ay ay Isaac ak Jackson loolu si amul kanam sens.
rawatina ba anyway ñoom ñaar presque même âge la te seen carrière maanaam seen carrière maanaam des na quoi des na lu bari fii ak quelques années dinañ xool ba xam.
waa mais Enso Enso tamit gain Enso tamit.
Enzo mu Maresca.
commencé waat nelaw de non Fernandes.
Mm, Fernandes Enzo gayen Enzo gayen décembre bi gayen comme cross yu njëkk yi ay temps yi gaa mel ne delluwaat na ci de xanaa daa jubóog jabar ci non xam nga da da doon jëlaat daa bëggoon jëlaat place am donc léegi moom inamovible commencé waat ruube waaye Maresca moom yii du ko yëngal waaye Maresca moom yii du ko yëngal moom su su ko gisee ni doxoo rek tegaat la ci baax bi.
non rek Chelsea moom match bi moom war nañoo sant gardien bi ak tamit Eze tamit mën na raté woo pop pop Eze yàqu na.
Eze moom mën a raté non mais tamit da leen wax ci sama joueur bi Muñoz Muñoz tamit gayen mu ñëw ni ko san ni ko sanse def foofu foofu ñaxaale gaal non loolu garaawul latéral bu ay gaal loolu foofu espace bu bëri boobu gayen yow sanse nga xam ne gaawul sax mais foofu kenn nekk foofu mais sanse nga xam ne gaawul sax mais gaawul mais espace ba- donc espace ba la utiliser rek yow el booba kenn nekk fa kenn loolu kay bi bal bi jàll benn défenseur u kii bi moo waroon ñëw défenseur bi nu mu tuddati sax défa- défenseur u Crystal Palace bi moo waroon ñëw fàtt foofu Génn mais ñu wala- bàyyi ko wala- espace yëpp muy def lu yow ko nag geex ngeen xool la croix kenn si ñoom ñaar kii football el droite bi rek kan moo nekkoon el droite sax Richard waaw li li tas tamit am na benn intervention bu mu def si Jackson gaal Jackson contre orienté rek saa fekk ko mais Crystal Palace nag gaal naa gis naa fan su Chelsea naan non caloo ba waruñ koo jaay ak yooyu caloo ba xamul gat dem na ba Palace ñaan di damm baal anyway ah Chalobah Chelsea noonu noonu gisee Chelsea gaal lan mooy problème bi en fait non Chelsea problème bi du dara yéen a ko fi yóbbuwoon fu ay góor rek loolu kese la ah naan ay président Premier League naa ma ne leen Chelsea léegi mu commencé perdre c'est normal yaa ngi dégg yéen a ko fi yóbbu fu ay góor rek
man kay maa ko doon xaar de. tey Waa, li nga ku ko doon xamul xaar man kay.
te li nga xamul man gis naa ni ñoom dina ñëwaat ne genre période bii novembre janvier bii février ñëwaat nekk di gagné di gagné mars ñëw amaat beneen période quatre match yoo xamante ni ñu gagné.
Chelsea loolu la amuñu expérience boobu quoi amuñu expérience.
nga may top four daal saison bi baax na soo amul top four nag mooy loolu.
nu ko yaa ko waxee rek équipe bi ay boy rek dafa nekk. loolay dégg dëgg.
waaye Mais- nag toppoor bi mais treize mais treize kii waxaat na de Obi Mikel waxaat na de gis naa ko nee na instant yii bu ñu amoon Gyökeres wala Osimhen dañuy compétir pour seen penalty.
Osimhen moonte mën naa ñëw de Xam ndax nga- moom fee def xam nga maanaam John Obi Mikel daf la quoi li tax ma ne daf la mooy yow maanaam yow maanaam Chelsea yëpp toog nañ maanaam moment yi nga xam ne seen moment fort loon comme man laa ci joueurs yi ñun la ñun compétir ñu pour maanaam jouer wuñu pour titre moo taxit ah Mahrez ko waxi la na mais dañoo réaliste comme ni ma ko waxee keroog yow maam mi jóge fee naan non bu fi Osimhen noonu wala kay ne fi instant yii dañuy compétir pour titre bi yow Chelsea pareegul pour compétir pour titre bi même bu dul dara sax yow xoolal défenseurs yi rek défenseurs yi kenn newatu fi du Reece James du Fofana mais instant yi am na benn boy académie buñ pro académie bi boy buñ promouvoir Achampong Jos Achampong remember the name grand joueur ngi noonu yàlla na ko Nigeria jël bëgguma bëgguma anglais di ko jël donc loolu rek moo lay wan ne Chelsea maanaam prévigul pour compétir te Mahrez ko waxoon na ko waaw après nag ku mu neex nga jëlee ko nu mu la neexee mais genre wax nga dëgg mais yow bu fi Osimhen ne woon on ne sait pas parce que tey jii nii link up bi kii am Jackson ak euh, Palmer Palmer bi yu bëri yi muy dugal nii peut-être la moo ko waral occasion yoo xam ne moom ko se créé lu ci bëri Sancho la wala Jackson bien vrai que ñaar yi duñ dugal lu bëri Neto dernièrement nekku ci mais dañoo déggoo quoi ñoom kaay kaay di nekk fee yow Osimhen bu fi ne woon nii mooy loolu yéen yi du ko man bii lay mën et après est-ce que yeneen gars yi nekk à côté de lui est-ce que dinañ performer doo xam donc mënoo am lépp quoi Jackson moom malheureusement war naa liggéey finition loolu moo ko dese ah bu la neexee nga ne ayoo mais selon moi ay na donc yow daal dee ko protéger rek waaye daal ah pour que ñu ñëw ma ko de maanaam bàyyi leen waxi Chelsea Chelsea ayu moom équipe bu ndaw la moom wax leen ci Forest mooy équipe bu mag bi mais attends yow yow non, bu ma- yow Bril, selon toi ah
non liñ daal wax ci dig moom li mu wax dëgg la Chelsea moom jarul non mais yow attends jarul yow laaj.
yow yaa indi Gyökeres ak kii Gyökeres ak Osimhen pour yow kenn suñu naa bu fi newoon kenn si duñ toog duñ fi waaye yi muy Bien raté yi- yi- Bien sûr.
Jackson di raté moom mi Waaw, ñëw pareil.
yaa yaa mel nañ jël Osimhen Osimhen du du niveau saa yi Osimhen Osimhen yow xam nga ko moom moo tene
moom Jackson moom loolu du niveau na ah Osimhen saa yi Dañoo même su fekkente ni yow yéen saa yi nii yow sooy xool jeu jeu Chelsea ñu yëpp jeu bi yëpp ñu ngi koy dépendre ci Palmer ñoom soxlawuñ koo xamante ne day ñëw di link up affaire yooyu ba nekkal sa kaw bal bi dina yegg si loolu moom loo wóor la te Osimhen moom xamuñ bu baax moom du rate moom soo ko taxee ba moom saa yi ci biir mais c'est vrai nag benn instant li nga wax parce que moom lu muy wax nii benn instant daa bëgg Osimhen bëgg ñëw Chelsea quoi moo tax mi te moom xam nga nigérien yi moo comme nigérien lay jàppale affaire yooyu mais benn instant su su Osimhen ñëwoon Chelsea man gisuma ni Chel- ni Jackson mi départ de gisuma lool de xanaa ci el bi peut-être mais nañu wax ci équipe bu mag bi équipe bu mag bi ah Nottingham Forest borom ñaari Champions yi Eh, ah man dégg naa keroog benn benn fan su Nottingham Forest naan ñoom ba tey instant yii nii ñu ngi commencé xool championnat bi de gars yi instant yii nii ah gars yi ñu ngi commencé xool waa Liverpool de di xool ba xam dinañ mën a jël championnat bi non mais Nottingham Forest ay nañ quoi Gibbs White ah dellu Wolves nga xam ne moo ko formé ñëw indi performance bu garaaw ah Chris Wood dugalaat comme d'habitude Hudson Odoi Elanga ñëpp a dox ñëpp a dox ñëpp ah sama waa ji Elliot Anderson ah non gardien bi sax génne na yenn génne yu garaaw parce que kind Milenkovic moom bi paada am na yu maye quoi mais nag non tarkal la non Nottingham Forest moom franchement moom yéene naa leen Champions League moom li ñuy fubal rafet na yéene naa leen Champions League de isaay moom Chelsea na toog xaar ba si kanam waaw Nottingham Forest mooy sama top four bu bees bi ah CJ yow loo wax Champions bi war nañ ko assurer de nee na mooy sa top four bu bees bi koo ci génne koy génne ki waaye Chelsea Chelsea na ah.
toog fële yow xam nga ne City moom top four bi da koy jël parce que ñoom commencé nañ ñu yow oui donc Chelsea ça veut dire que Chelsea mais yow sa top four Oui, top désolé.
quatre defoo defoo ci woon Tottenham yow moom yow bàyyi ma yow ma dimbalee Tottenham moom Tottenham gars yi bàyyi teel na de To- ah Tottenham quatre défenseurs ñëpp blessé loo bëgg non non bàyyi.
ah mais bu daa am temps de attaquant yi blessé milieu de terrain yi blessé saa yi am nañ temps de boy ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci janvier boy am nañ temps de pourtant
Chris James départ Lamia blessé la Lamine départul.
neen defar.
Ah déet départul kat. Tottenham quatre défenseurs départ ñoo blessé.
Poro gis nga naan défenseur yëpp.
Waa Por deux défenseurs.
mais des joueurs.
Ay Por deux défenseurs.
yaa yaa jul Por dix dix Por buñ teg si day defar.
LB dix buñ teg si LB.
day defar.
waaw moom kese moo ko doon taal Waaw, loolu ñu ne ñëpp kenn nekk. non mais Tottenham moom du jël top four top Tottenham moom c'est mort. saa kay yéene naa ko Nottingham Forest non Nottingham day jël top four sax c'est sûr.
loolu nga gis.
moom hundred percent. moom Eh.
kay bàyyi bàyyi bàyyi hundred percent yi.
non mat na mat na top quatrième quatrième moom mën na koo bañ a jël inch bi.
lenn laa lay xamal ndax équipe bii kii la may fàttali Wolves Wolves di performé ah dama nay Jiménez dama toog Odette loolu la may jox de ay Pedro Neto loolu la may jox de Espirito Santo waaw même chose rek bisuma ne ne Champions League de maximum Europa League non dañ fay dem.
man loolu laa gis de. man loolu laa gis de Europa wala conférence de sooy xool équipe bii nii équipe bi amul genre lu ngay lu ngay yóbbu pour mu yegg muy enthousiasme quoi ñoom dañoo déggoo mu joué Espirito Santo moom xam ne mu baax équipe bu mu munti am ñoom dañuy dañuy football quoi football du leer la ñuy am mais yenn saa yi nii sooy xool du tax ñu nekk ci kaw kon Tottenham daaw rek. mais Amee- kii enthousiasme enthousiasme moo tax ñu nekk fii ci kaw mais gis naa ni sept ñu wàcc victoires consécutives.
mais Espirito Santo ñu la yàgg a mal de jox ko lu fi dugal jox ko ay indi yu gaaw yu am technique waaw surtout yooyu gaaw alors mais daa nga puutal ba pare li ma ci neex moom daa daa xaw a modifier joueurs yi ndax sooy xool kii de Langa ak kii di Hudson-Odoi ak Gibbs White yëpp benn instant ay yenn année yi passé ñoo xawoon a selfish quoi su nekkee ci kaw surtout Hudson-Odoi duñ duñ mus a xalaat passe bal bi ñoom dañ duñu amee benn bii wala kii rek li ñuy xalaat mais léegi da ngay gis kii di di passe nekk ci jàkkaarloo ak góol bi naa ne passe eh, keneen ki dugal affaire yooyu ah, dañ- dañoo am benn eh, kay wax de sax oui
Non, mais- dégg quoi benn instant non Forest moom wan gëm naa ne mu day dem Champions. waaw Hmm.
Forest Arsenal City.
dina leer quatrième bi
Forest Arsenal City Liverpool. Liverpool.
kon kii bi daal boo ko boole woo ko ci nii nii nii daal Oh, di say City, wax si Forest Forest Arsenal waaw City.
personnel oh ok ok ok Chelsea laa génnee fële.
Ah, Newcastle ah, mi sax eh attends mhm.
Newcastle mi waaw, sax moom laa Tottenham day doon- gagné rek. loolu tamit kaala la.
Newcastle tamit mi ngi ñëwaat de baax na mais Angleterre mën naa am cinq cinq cinq club de monté ça dépend si ranking kii bi rek ranking FIFA.
on est parti FIFA World Cup bi
quoi ça dépend si kii rek fu ñu toll fii ak kii mën nañu am cinq équipes de tamit mooy loolu mais gain euh, ak lan kii euh, Tottenham kii Tottenham Newcastle ah Tottenham Spence lañ jël teg si diggu non Tottenham wéy dinañ nag Spence nga xam ne ay presque ab ailier la nga ñëw laal ko défenseur essay essay poste kooku lu daa désespéré wu moom ndax dafa ne ñii moom xamatuma si lu bëri quoi ah non chet Dragozin mi ngi fii football premier mi-temps après génn ah ay Reguilón di dugg Reguilón dem si El Ghouta Spence ñëw si digg bi ñu jël ko boo ko gisee rek xamal ni mooy
Imagine, imagine toi.
Bergwijn ak Pape Matar Sarr
Arsenal, Arsenal di jouer ak quatre euh, central back, quatre défenseurs central ci dëgg bi. ñii di jouer ak quatre latéral rek.
non Gray kay milieu de terrain la waaw waaw waaw waaw li ngeen gré sax milieu de terrain sax sax.
Spence Porro moom ab ailier la moom moom moom dootul wàcc sax loolu lay wax ji ah bon ñëpp blessé ndoo kat loolu daa métti de ah bon yaakaaruma ko tey ñoom kay ay Maki Moore ak boo yooyee attaquant lañ ay Bergwijn boo yooyee ci kaw gi dañuy fubal mais non li ñaaw na nag mais bon ñu wut ay défenseur de Davis blessé Romero blessé ah ñëpp blessé ndoo gain Van de Ven out Vicario out lii nag Udogie out ah moom lii moom ñaaw na trop moom franchement. mooy loolu quoi.
Peut-être Newcastle bi saa yi Newcastle tamit saa yi kenn du waat seen i mbir. kan moo leen di arrêté.
non Newcastle Newcastle Newcastle moom bi Tonali ñëwaatee ba léegi daal Tonali ndekete ndekete moo tee Tonali mi ah Hmm.
Tonali gars yi dañ ko doon sous-estimer nii mais Tonali grand joueur la
gars yi bu ah.
ko Po- po- po- po- teg ci.
non Tonali dafa mën a fubal Aliou ay di lire dina ay daal di leen xamul rek.
ak Murphy tamit Murphy maa ngi ko doon wax keroog sax Murphy daa yéen temps yi moom Murphy xanaa du sonn moom moom. ah ñaari poumon la moom ñetti poumon.
waaye équipe bii moom bu la ci kenn ndax ne ñëppay performé de wax dëgg yàlla ki ñii di nekk ci dépense bi ñi nekk ca kaw ñi nekk ci milieu bi ñëppay performé yenn saa yi.
ak Botman tamit bi mu ñëwaatee ba léegi. bi mu ñëwaatee ba léegi moom moom tamit moom tamit talaa la de bot te moom xale la. moom talaa la de défenseur bu dëgër kecc ngi noonu.
ba ba ñu jóge jëlee ko ci aile bi du indi ko ci digg bi ci commencement bi dañoo xaw a réer mais yenn saa yi nii moom yi maîtriser de.
Beur mais dara.
Beur moom défenseur la woon di moom bi mu gënee nekk xale après la soog a dem si.
mais latéral yaa mais ngi ko défenseur la mu Samuel axe la mos a nekk. non Tottenham mi équipe la mais non ma naan Tottenham Newcastle Newcastle mi équipe la mais Tottenham Tottenham moom Tottenham moom nañ fexe ba gagné Carabao Cup bi rek loolu daal mooy suñ ko xasee ba gagné moom boobu boobu moo après li si des garaawul nañ bañ a wàcc rek loolu moo nekkaat seen objectif. pour que deux Carabao Cup.
minutes de la coupe. non mooy loolu quoi.
ay Carabao Carabao Carabao xam nga ku ñuy dajee saa yi gis nga équipe bi ñuy dajee Carabao Cup ba baax na.
non eh, ah, eh, équipe bi mag yooyu seen yoon du nekk si Carabao Cup Spurs daal la teg yëpp tip jéem a gagné loolu waaw. ak lan Aston Villa door na Leicester 2-1 bii de Bailey ak Barkley.
Quel but de Barkley.
Barkley zéro la démonté. waaw daaw Luton mi ngi doon fi zéro lu neex Luton ak kan euh, Bournemouth tamit door na Everton 1-0 Everton Everton day wàcc wala CJ
waaw Everton moom ñëpp xam nañ du wàcc mais.
ah ah baax na non Everton Everton yi taamu nañ ko quand même ñoom ñëpp xam nañ ne yiy bàyyi ba match commencé yeewu loolu moom taamu nañ ko taamu nañ ko ci Everton.
acca rek lañ ci def mais loo gis ci Iliman Ndiaye mu mu bàyyi ko lépp wala.
mu bàyyi club bi ah non pour l'instant kay donc mi soog a ñëw man moom bëgguma ay joueur boo xamante ni chaque année day changer équipe dafa toogaat année bi ak déwén déwén mu gën a xam nga eh, su demee ba gën a maîtriser gën a xamante ak gars yi gën a miinante ak gars yi Je- espérons tamit ñu am benn attaquant bu aay bu gën a aay ay Calvert-Lewin ay bett waaw eh, peut-être mu dina gën a kii gis quoi waaw déwén nag su demee bu performé bi am benn niveau dem ci benn top club
Ah, baax na on verra ah eh. Everton mii de moom mooy loolu mais Bournemouth tamit moom tamit ñu ngi septième de Bournemouth tamit duñ ci wax ah. non Angleterre loolu tax nga laaj mi loolu yow da ngaa gis ne Everton day wàcc mi Everton bi ok loolu laa gis moom loolu moo nekk sa benn point la ñu doon Ipswich benn point.
foofu de waaw Wolves Wolves te moog Ipswich ñoo tolloo rek donc benn suñ pertoon essai nii Wolves match nul Ipswich gagné ñu ngi si wàcc ba essai moom saa yu Southampton rek moo leer 100 pour cent dañuy wàcc ñeneen ñëpp à tout moment entre entre Everton Wolves Ipswich Crystal Palace sax à tout moment West Ham sax day risqué United sax mi ngi risqué maa la ko wax.
ah Loolu boole ci biir dina comme pook su fekkee te ay Tottenham tamit génn ko si de génn ko si de mais ñooñu moom United ay Tottenham dañ dañ koy gérer mais ay Everton yi dañuy risqué de lu leer laa la wax. ah baax na nañ dem Italie ba ñu wax Serie A bi ñu ñëw si ñu ñëw si-
ah yow de yow de dafa mel ni dem ba tey nii moment bii nga doon xaar.
non démb li ma ree pop pop pop borom non moom am moom man man treize li ma métti si wax ji mooy démb moom ñaari wax yu bokkul lax dafa ñëw épisode bi passé ñu ne non ñun duñu Juve non xam nga ne de Milan dañuy assuré final waa dañuy dóor Milan ñu dóor ko di démb ma koy wax wax mu naa la ay super coupe amul importance nangam sangam ma ne ah yow fii nga mujjee mais booy lu xew gars yi deux heures yu gaaw pat pat dugal dugalaat ah ñu ne ko laal ay trois bi li ma woowee c'est ça machine bi laa doon.
non mais wa wa- waa Milan waa Milan dem ci su- waa Milan may nga leen luñ feetoo gars yi dañoo fanaanee feet conseil saudi la bi cigarette ah
mu dina wax li ñu li ñu gis rek waaye wóor na Loolu deux minutes la dugal deux minutes.
ñu ni ñuy feetew ba léegi yéen saa yi ñoom di feetew ba léegi ku keneen ñooy Champions League man wow conseil saudi ñoo fecc conseil saudi non loolu moom tàmm nañ ko moom loolu moom même porte loolu yow si deux minutes nga dugal deux bi non du 2022 premier mi-temps.
waaw mais deux minutes quarante sixième ak quarante septième rek benn la.
non deux minutes doo dem si.
waaw loolu deux minutes.
affaire bi ñëwaat.
waaw waaw mais non bu la deux minutes waaw non deux minutes la non bu la parce que bii quarante cinquième minute nga ko dugal bari la.
da ngaa dugal administre sifflet fin du temps nga ñëwaat fat fat dugalaat waaw loolu deux minutes la non non dem na non loolu deux minutes dem la.
na noppaleeku maanaam ku nekk ñoom dafa ci discours mooy loolu donc deux minutes.
my friend deux minutes la.
en tout cas daal moom. léegi loo loo bëggoon wax foofu ñëw
léegi lu xaw deuxième mi-temps waaw li xew mooy genre tey jii nii match yi moom pour commencer moom amatul benn benn solo parce que ay yow yokkal yokkal yokkal baat bi dégg ñu la yokkal baat bi.
nee na man ñi baay da ngaa xaw a découragé de bàyyi. ñu fa defee noonu.
tellement yokku gos.
non yow mi naa dóor la ba mu ñëw dóoraat la loolu waa wala xam nga ni
laa non dégg kat ne ma dégg.
waaw xanaa ne xappi moom démb sama sama sama sama gund gi neex na benn si non démb damaa xappi
da ngay sëñ bi.
waaw bàyyi ko mu wax nag.
ñëw ñëw ñëw wax expliquer expliquer ah pour commencer tey jii nii match yi moom ñu ko wutal ali bi quoi parce que le problème mooy bu ñu mën a deux heures ñu fekk la fa trois heures. bien vrai que match bi nag dana ay épisode mais jëru sax du ciy jaar comme ni ma ko waxee amul benn njëriñ day ñëw di jéem a justifier deux heures trois heures loolu daal la am si li may wax mais Milan tamit démérité wu genre def nañ seen match genre tey jii nii soxlu ñu justification de boy nga wax ci match bi lañ soxla. ñu fa demee noonu.
ah nii dañoo la bëgg wax la léegi nga xam ah mais genre lan moo xew lan moo xew genre lu tax genre deuxième mi-temps bi deuxième mi-temps bi inter nul défense bi nul. moo xew.
Abraham Abraham Abraham moo la potal non non mais du question du question de Abraham sax question de comme ni ma ko yàgg waxee maanaam tey jii nii match bi maanaam wane na lu bari quoi maanaam commencement saison bi gars yi dañu doon wax naan non Inter ñaari équipe la yor les les match c'est vrai hein c'est vrai koo xam ne yow maanaam démb ba baa bi duggee mooy loolu gars yi dañu jaar fu leen neex yow maanaam démb ca nagul bu muy commencé match bi performé wu teewutoon ni mooy loolu mais bu doon am dara te saa yi newutoon sax ci forme ñu ngi naan dafa kii même pas cinq minutes mu commencé laa kii bi eh, daal di génn ñu ni déet bare la toog ñu ni déet mictaar la toog yow aslan ba mu duggee man laa xam ne man eh ben bàyyi aslaani yow yëpp nga aslaani trop la da ngaa yëpp aslaani da ngaa yëpp aslaani ah mais pare- bare la sax ci fin bi la toog bare la moom bu noo ko wax dara nag ci fin bi. fin bi taa la toog.
am nañu aslaani am nañu frattesi ah surtout frattesi maa ngi koy léegi mu naan déet daa bëgg daa bëgg a daa bëgg a changer équipe maanaam góor ñi xamul gàtt bëgg a jouer non lu yéen ak lu grave maanaam daal lii daal moom war nañu lu bari te aussi maanaam ñun super coupe bi ñàkk xorom bi liñ ci perte moo bari perte nañ ci trois perte nañ ci trois moom.
ah turam blessé la tax
waaw da ciy reetama.
daa blessé Thiaw Ndombul blessé la ah te man li ma ci gën a metti mooy genre compétition bi amul benn njëriñ amul benn xorom boo koy li gën a mën ba koy def ci sàmmataan bi comme ni mu mënoon bu njëkk dama xamul tax léegi ñuy dem ba digg saison bi li derbi la bàyyi la Ñu bëgg a jël saison derbi la derbi ñu bëgg a jël waaw saison léegi gis na gars yi dañuy gis ne.
pour quatre équipes yi man foofu laa waxee nag.
ah France tamit Arabie Saoudite lañ dem Espagne ñu ngi nii Arabie Saoudite super coupe mais mais mais mais boo boo nee équipe bu mel ni Inter gaan ngay compétir pour gagner championnat bi xam nga yéen ñii tamit instant yii Napoli réew nañu quatre points parce que moo ñu ëppale benn match. di ni maanaam du avantage quoi maanaam lu gënoon daal moo ñu bàyyi comme ni mu meloon.
non non wax ji du loolu wax ji xam nga wax ji yow su fekkee super coupe da ngay teg baa bi def na def na Atalanta teg baa bi añu Non, mais yow teg titulaire rek ba noppi ñëw fii di kaas naa ne non sax na saa du man maay kaas du man maay kaas loolu ñëpp a ngay kaas.
waaw kon tegal baa bi kay.
non calendrier bi moom saa yi.
waaw mais gannaaw yow. calendrier bi ma calendrier bi mënoo si dara. léegi yow tegal baa tegal baa bi rek aju.
mën naa classé waaye wala.
waaw yow Inzaghi mu teg baa bi.
déet ba Inzaghi lu ko wax. Inzaghi mi ngi nii ñëw sama équipe reer.
yow yaa fi ñëw teg équipe type contre contre kan waaw Atalanta.
am na ci droit.
nga ñëw Mais tegaat équipe type ñu dóor la ngay kaas naa lay kii waaw mais man man teguma teguma équipe type yow yaa fi teg équipe bi man waa teguma équipe type teguma équipe maanaam compétition bi kenn jox ko njëriñ maanaam da ko benn ah Inter de jox na ko ñaar ñaari mais bu ñu nee suñ kenn jox ko njëriñ de. Inzaghi jox na ko njëriñ. Inzaghi waaw Inzaghi jox na ko njëriñ bu mu baax. eh attends. Inzaghi yow Inzaghi jox na ko njëriñ bu mu baax. saa yow moom ñëpp yow moom xam nañ bu baax Inzaghi ñëpp la teg yii ci.
nii du ko poye déjà déjà yow yaay wax waaye wóor na ma ni intéressé jox nañ ko jox nañ ko këdam quoi ndax trois non non non non déjà trois fois consécutive yaa ngi koy gagné bëgg ñëw tegalewaat comme ça nga ñëw nga ñëw tolloo nga ñëw tolloo coupe ak Juve tamit loolu tamit ni am dara la yéen moom gars yi moom fonk nañ ko moom coupe bi coupe bi waaye Inter rek laa gisoon ni fonk nañ ko.
Italie bu ñu woon Coppa Italie Italie fonk nañ Coppa Italie oui super Coppa moom sax.
yow Bina sax baax dina la laal ay Jiménez ah ay Moussa yooyu ñooñu la la laal ah.
loolu kii la de soit waaw mais dafa dafa kii dafa Non.
dafa dafa dafa mixé gars yi.
soit non du question de mixé la soit tactique la. yow moo tax bëggoon naa ne Chimina ma yónnee ma ba wax ndax gëmee woo na ni léegi lay aw lay aw pour yow di toog ban so voilà waa léegi waa léegi may ko mu wax si Milan.
Mon frère, waaw ñëw bu mu nekkee soit tactique lu am tactique la xam nga lu tax. conseil saaw maanaam équipe Porto la ne woon conseil saaw du du Fonseca du Pioli du fa nekk naan day jéem a xaritoog joueur du fa nekk naan da lay jéem a comprendre du fa nekk naan la noo defal effort bii ba effort défensif ñëwul ci yooyu moom lu mu xam mooy daw phase offensive phase défensive da ngay daw ah moom loolu la xam. gis nga Théo Hernandez démb démb Théo lu mu joué gis nga ko mu joué ah yaa dégg Jiménez boobu ngay wax xam nga tax ma def ko.
Hmm.
dafa bëggoon a pes di maat ko.
Hmm.
te finalement sax am na ci réussite. yaa ngi dégg booy xool monsieur Mbaye Bastoni moo doon centre. yaa est-ce que yaa ngi comprendre. ma machine boo xam ni conseil saa benn instant dañu na ko. mais voilà parce que choix yi ma def moo baax. Léao gis na démb moom duggee Léao man dama ko gisee démb gën a yaakaar gisee noonu. xarala yi nga duggee. yow da ngaa baax conseil saa saa yi. dafa teg zéro ci accès de di leen man nii laay footballee lii laa bëgg ngeen dégg ko ku ko def ñëwal bokk ma ci projet bi ku ko deful da ngay pousse fële te man lool loolu laa yàgg bëgg man coach yi loolu laa bëgg ci moom. kon bëgguma ñuy fuyal joueur bëgguma lii bëgguma laa même boo performé wul sax defal sa devoir man gis naa ne différence bi foofu la parce que ah Jiménez boobu ñuy teg ça fait kooku saa jumaay la kooku saa bu la gën maa ngi si équipe boobu te man sax Real sax démb doon def ST Power gars ma ne eh it's a lui.
non Inter yambar ngeen fexe ngeen ba Emerson Royal ay Emerson Royal laal coupe musul laal coupe ci Tottenham ñëw ngeen may ko coupe Tottenham cinq mois laal coupe. mais mais li nga wax bëgg non.
naa gis bëgg naa gis ni muy demee quoi parce que man Milan moom bëgg naa bu ñëwaat.
waa léegi yow looy xulli ba Milan di la door deux fois consécutif non mais deux fois consécutif yoo xam ni genre comme ni ma ko waxee rek même Juve sax boo xool 4-2 lañ ko mën a woon mu ñëw 4-4.
mais yow Saison yow bi Milan bu- ñaata at a ngi nii nga koy dóor ñaata der bi ngi nii nga tegale ko dóor mu ñëw ren deux deux fois eh big moo nag day na waaye ah eh big moo eh day na waaye quand même.
man la ma am da daaw ngay topp man la nit ki benn ma am daaw sël.
man la ma am daaw waaye ko moo expliqué yow.
man la ma am daaw laa la wax de. maanaam su ma toogoon dix ans di perte derbi sax amul problème.
déggal déggal.
man kër mi la daaw dañu sant naa.
loolu lan moo ko daax.
ni laa ni laa laa joué Champions League duma ko dem final Champions League. yow maanaam yéen ñi maanaam loolu lañ ko mën national jàmm koroot bii. wala Serie A bi Serie A bi Milan gagné na mi ngi si ginnaaw ba léegi ana Juve Juve fan la nekk Serie Juve de amagul def.
tey ñoo wax ci Milan ñoo wax ci Milan waaw léegi benn waaw léegi du bëgg ko jàpp garaawul garaawul comprendre nañ comprendre nañ waaw si de ñoo wax ñoo wax ci Milan avant avant may wax ci match bi moom man man big moo moom décevoir nga ma quoi. ah saa nii saa nii da ngay mel ni Inter yi say sept ans huit ans ci ginnaaw li ñu doon def ak Juve yéen saa nii loolu ngay nekk di def man moom lii.
non non ci am lii Juventus la Juventus yi xaaral ah non xaaral xaaral ma wàll yow Juventus nii mais kenn ñu xamee ci eh, kii déception yeneen équipe yi ñun ñun ñun dañu nekk foofu ñàkk pour la nekk di topp yeneen équipe yi di xaar ñiy des ñiy wax daanu de ñun ñoo ñoo am ADN boo xamante ni ñun suñu équipe li ñuy xool dañuy seen ah yow moom yow am na loolu la yow moom dem moom dem moom fanaan nga jooy am nga la doy yenn saa yi nii yenn saa yi nii yëpp interest dëgg ngay def yenn saa yi waaye sa yéene nag saa waay yow kii bàyyi ko xoolal kii man li li tax may def mooy ñoom ñoo fi nekk naan non super coupe amul importance nangam. te bi match Non, bi non.
jeexee dañ koy soog a wax. avant match bi daaw ñu ko woon wax.
man man dam maa ko bàyyi ci biir man xam naa ne bu baax yenn saa yi lu ko nakari am am na lu ko nakari bu ko doy déjà ñëw perte super coupe boo xamante ni ñoom dañ kaa fonk ñëw perte derby bi tamit teg ci deux fois consécutivement loolu moom ñaaw na moom trop saa yi dëggantaan wax dëgg yàlla mais match bi moom tay ma non mais match bi match bi war nañ waa Milan war nañ war nañu wax ñoom mi mi mi taal ñoom dañuy ba xam dañuy jël dara ñu demee ci biir vestiaire yi ba xam dañuy jël dara wala ay conseil saalum leen di wax mooy dugg wala lan mais mooy deuxième fois ñuy ñëw remonté contre Juve tamit premier mi-temps nul defuñu dara même match bi sax sooy xool kii di Inter kii di Milan premier mi-temps defuñu dara sooy xool mais deuxième mi-temps bi po quel quel match baay affaire bi day ñiy ñëw fat fat dugal kii ñëw Théo Hernandez dugal ci mais yéen Sommer Sommer premier bii bi noo leen gisee bii woowu sax yéen premier bii bi ah mais man dama jàpp mooy yow maanaam bëggu pare yow ngeen nekk ci match bi rek man bëgg jëf na suba tamit man fi loolu jaaxal na ah déedéet yow yow looy looy bëgg ci match bi non mais man man moom man moom man moom les saa ci match bi laay wax de man waxuma nekk ma fii di ñu wax ay inter man match bi ñun de man dama analyser match ma analyser match rek laay def ah non da nga koy comprendre xol bee bonnes bi defet bi moo ko jàpp tefet bi moo tefet bi moo ko nak non mais sommaire sommaire foofu dañ ko couvrir dañu couvrir vision am gisul bu baax moo tax bal bi bi mu déparé lay soog gis.
mais barrière bi moom daa noo ko war a tegee yoo xamante ne daa war a couvrir benn poto yow nga dem taxaw ci beneen poto bi normalement.
te yow da koo nax da koo nax.
ah man de foofu moom def décevoir nga moom même su fekkente ni teg na ci poto boobu le Martinez Martinez xaw a bouger. mais moom amoon na ne loo xamante ni mënoon na teg neneen barrage bi quoi foofu moom gis naa ni erreur sommaire la mais Leao Leao saay game changer saa bu duggee man comme ni ko Thérèse waxee man gis naa ni saay yàgg naa ko gis bi def genre performance yi moom tamit comme comme joueur Man United ah ni moo lay wan ni moom kii mun na bokk ci meilleur joueur au monde mais lu muy def moo koy tey ah genre moom su ko neexee ñëw tey performance su ko neexul xoolal démb moom normalement dañ koy gis moom ci el bi rek day taxaw te xoolal action troisième bii bi moom day ñëw daa ñëw ba dix bi ba ci dix bi saa yi ñëw dugg def ay mouvement ñëw racaxe foofu yëpp bi seg saa yi nekk foofu di miir xamul sax muy taxaw mais Milan Milan mun naa ni chapeau ñoom def nañ ñaari match extraordinaire ñaari deuxième mi-temps extraordinaire laa mun a wax ba ñëw jël coupe bi ah bëgg naa gis tamit ñi ñuy def ak championnat bi léegi ba xam ni nañ yéegaat dina am différence ak affaire yooyu conseil sa moom waxoon naa ko fi moom moom keroog moom moom kii la ku am caractère la quoi te moom moo baax ci équipe bi équipe bu Milan bi te bëgg naa gis ñu nar a def championnat bi nag wax dëgg yàlla góob mu ñu yegg de Milan mii de. xanaa Europa League xanaa maximum. mais quatrième moom góob.
non daar man man waxuma sax fin fin saison bi fi nar a egg mais résultat yi nar a am quoi loolu laa loolu foofu laay waxee.
ah on verra. ah ñëw nañ bàyyi nañ bàyyi nañ bàyyi match boobu balaa stress di déprimé nañ ñëw wax si yeneen match Serie A yi quoi wala bokk Napoli. Napoli door na Fiorentina 3-0 door yu gaaw yu yomb. ah ah Napoli mi Napoli mi de soo moytul man Inter laa waxoon daal Inter sûrement dañu jël championnat bi de waaye comme Inter temps yi daa commencé ruube ah. Napoli yow Thérèse yow loo wax si Napoli Napoli jël championnat bi wala.
man Napoli yaakaar naa wax ne moom mooy kii bi de. Inter de waxoon naa ko depuis commencement saison man maanaam coach bi rek laa gis man xam ni maanaam bi takar naa sax quoi genre. akala am na ñoo xam ne ñoo ko war a jël nekk naa non ba loolu ba léegi bëgguñu ko mais maanaam coach bi mel nii boo amee.
mais Conte daa mën a dellu.
non Conte kay benn équipe rek moo ko waroon a jël mi Milan ñii nekk foofu diiru. Ibra di topp Ibra rek.
plus lan moo tax mënul dem Juve yow.
waaw yow Conte ñëwoon Juve ngeen pro foofu yëpp saaga ñu. waaw waaw mënul mënul ñëw mënul ñëw Juve xam mu baax ak li li mu fëccëree. waaw loolu mënul nekk mu ñëwaat Juve.
kon dina la mel ak comme dem day.
moo tax fu mu dem du fa demaat.
bàyyi rek.
donc dafay créer di ñëw rek dafay créer daal di ñëw donc Napoli Napoli kii moo doon wax naan Napoli def dara si jëy mi kooku nga war a laaj.
kuréel maa doon wax. waaye surprendre ma moom.
yow gars yi Napoli kii di laajte moom surprendre ma pour l'instant.
bu fee Arsenal Arsenal gayen nga wax fii ñëw Naples du fi def dara a baax na mais Fiorentina bi tamit gayen luy problème bi Fiorentina temps yi mooy loolu de Fiorentina gayen temps yi yambar nañ trop sax.
ñi de bett moom Fiorentina.
ah ah Fiorentina cinq matchs sans victoire. non lii moom ñaaw na moom franchement. lii moom Fiorentina ak lim doon football football bu rafet bi ñu oroon ah ak Palladino gayen ah football bi mu fi indi ñu toog cinq matchs gagné wuñu non ah gars yi commencé woon tagg ay at lii genre joueur yooyu ah ay Beltran ndekete yoo Fiorentina gaayen loolu période la woon rek. dégg yaa sax bal yi ni mu doon dugg yomb na trop gaayen biiw McTominay bal bi raam gaayen dugg naaj dégg yaa mi gaayen ah ana miracle yi mu doon def.
non xam naa ne dañuy xam naa xaritam la quoi depuis ma ñëw mu ne xaaral ma may ko benn biir da nga perte leen ba pare kay rek.
même biiw neeres bi gaayen dóor bi daañu ci ga ci ci kaw boppam bi la jaar loolu waroon na ko mën a génne de yomb na. yomb na Neres mais Neres yow waat na de David Neres.
Neres moom dafa mos a am talent daa waroon tàmm Italie rek loolu la ko apprécié moom mooy loolu. mais kii bi nag derbi bi nag derbi derbi derbi de la capitale ah Roma Lazio Roma Lazio gain affaire bi ci xeex la mujjee gain Hummels dañ ko laaluñu ko sax muy tëdd di jàpp bopp valeur yi neex nañ la. Hummels de fexe ba bañ ruus Castellanos moo Castellanos jegewu ko sax mu naa day dañ jàpp bopp di daal di yóoku arbi bi ñëw ruus ko ah non mais gain Ranieri mi il est extraordinaire Ranieri li tax mu gagné woon championnat ak Leicester waaw ñu wax di lool de. maanaam daa ci def ñu di jouer maanaam toog di ko déglu.
mais daa boobu daa fekk ñu ñëw fatt leen benn déjà di.
Lazio ci boppam moo mën a raté ci boppam. Boulaye Dia dugalatul Castellanos dugalatul mooy loolu Dele Bashiru gayen benn match la fi defoon toj gars yi bëgg koy waaw mais tamit gayen Isaac Sen tamit raté na ba sonnu démb Isaac Sen moo mën a raté.
c'est quoi le problème avec Boulaye Dia.
ah Boulaye Dia instant yi temps yi footballatul sax mais footballatul tout le temps de instant yi bi instant yi parfois day départ parfois du départ ah mais tamit.
problème man su ma nekkoon coach bi dama koy teg neuf bàyyi ko fa. xool benn période benn période ah Jackson daa dugal.
non
non mais dama pare mais mais Boulaye Dia moom yenn saa yi nii maa ngi keroog sa sa cousin bi Magic Ser mi ndoo wax ni teguñu ko place am léegi match bii ñëw moom rouge na Castellanos donc deux matchs au moins deux matchs nar na ko toog je du narul je Boulaye Dia moo nar a ñëw di G9 bëgg naa ko gis nag match yi di ñëw moom bëgg naa ko gis warul am benn lay yenn saa yi saay gaay mooy loolu de mën naa jël beneen gaay teg ko neuf de on sait jamais ñëw la
yow nga am benn neuf déjà nga bëgg fee teg keneen loolu daa mën a nekk wala nos nit ah baax na moom yi bari na de.
Castellanos amoon na benn période deux trois matchs yoo xam ne footballul woon de mais teewul woon
non mais boobu daa blessé woon na di ku mel nii Boulaye Dia boobu tam non Boulaye Boulaye Dia dafa am blessure Boulaye mooy loolu de baa bi lay dam de.
ah mais Roma daal temps yi moom défense bi dëgër na këcc Mancini Ndika eh, Ndika tamit ah eh. Villar tamit génne na ba soon dem gardien bis Villar quel gardien Villar tànk yi neex na ba noppi gayen mën naa jàpp non non Rome Rome moom dem moom fans Rome yi moom dem bëgg nañ quoi ah laa si ñëw football match bi yëpp di rata rek gayen ñu door la deux zéro wax ji jeex derbi bi non Rome moom dañoo man derbi bi Rome moom même année yi nga xam ne Lazio moo leen man moom derbi moom dañ koy assuré quoi dafa woy tax.
culturel.
fan si sax dañuy kii ci derbi bi gaan ah, fans Rome yi dañoo dof de dafa gën a tàng Italie.
fans Rome yi non mooy loolu quoi ah baax na baax na baax na ah essayé moom Lazio moom mi ngi woon ci kaw mais moo ngi wàcc moom tamit moo Fiorentina moom mooy loolu seen yéeg bi du yàgg mooy loolu ah nañ dem France France moom waaw ana la dëgër na.
Hein?
la dëgër jour.
waaw yow bàyyi ma de la dëgër jour nan la France doomi France.
eh nañ dem France la la la dëgër yi lan la dëgër jour.
bon lu muy dox di si waaye Ah, bàyyi ma dégg yow yow La yow dëgër.
yow lan ma si yow amoon na doon yow instant yow instant Milan waxu Milan waaw yow instant yow kii sa xel yow man ma lay sonal comprendre des fois yow man ma ko yow lan ci Non, kii jarul sopp ba yow ne ko tammi Abraham rek yow bàyyi Bye.
yow yow kon defet bi def na nii la la def nii nii yéen saa yi saa yi.
da koo jàpp waaye démb mu teel a tëdd gayen xam naa moom suñ suñ jàppoon épisode démb moom. day non jekk saa démb rek kenn ñu ne du ni damaa doon feebar.
bind ci biir groupe bi. wóor na mu ne ñu doon gis message yi mais bii bàyyi noonu jàll lépp quoi.
la gis. non lépp la gis.
non saa yi kon defet nii lay def ci nit.
daal li waxam ba tax na ba ngay gëlëm. da ngay gëlëm ba fàtte ni saa yi went yeewul quoi.
loolu lijjanti dañ dem France France PSG. beneen super coupe finale gayen PSG ak Monaco. ah déedéet loolu kay match final la de ah ci wax kay. loolu ci Monaco. non match bu neex nag eh ci biir terrain bi sax sooy xool.
match bu neex ngi noonu nag match bu neex ndax match bi da doon ban bi da doon jóge fii dem fee occasion Paris Saint-Germain da doon am occasion Monaco am occasion match bu équilibré wu de.
Monaco ñaata occasion la am.
eh Monaco gaa gaa ngi gisoo Banderson gaa poto bi poto bi gaa Banderson Banderson war a dugal bal bi di ko ci poto.
am daal waaye.
non eh eh Paris- non match bi daa neexoon de sérieux match bi neexoon na équilibré woon na waaye nag mooy loolu quoi kii Dembélé moo ko mujj lijjanti. Euh, dernière minute bi Fabien Ruiz dugal bal bu garaaw si digg bi Dembélé ñoo dugal mais Dembélé temps yi moom temps yi si digg bi lañ koy teg moom false no false nine false nueve mais temps match bi moom football la rëy moom match bi moom mooy loolu. Doué ak Kangin lii daal ñoo fa nekk di rate ñoom ñaar moom rate nañ ba sonn su dee kii moom mooy loolu quoi xaw ma lu tax tegul Embolo Embolo tamit moom ak moom mooy loolu quoi ak Pape kii tamit football waa deuxième mi-temps la dugul bokk Lamine Camara Lamine Camara ak Embolo moom ñoom ñaar waroon nañoo départ genre match bi quoi franchement waaw yow CJ noo gisee match bi.
match bi kay kon ni nga Thérèse waxee jaruñu ci yàgg moom.
bàyyi leen France bi ngeen di ñàkkal fay.
ay mooy super coupe français Paris moom xam ñëpp xam nañ moo avant match bi ñëpp xamoon nañ moo koy jël moom ba pare match bi tamit wane na ko wane nañ man kii du moroomu Monaco man ah yi moom non eh déedéet non man loolu d'accord ma de man loolu d'accord ma de.
France loolu mooy la booyee rek non non loolu d'accord loolu d'accord ma de. Monaco amoon na occasion de pour sur deuxième bi ak Lius ak Vanderson ñoom ñaar ñëpp am nañ occasion pour dugal loolu soo suñ dugaloon foofu kon beneen cas la ñuy wax.
loolu laa la wax match bi deux occasion lañ ci am ñi nekk fii di raté rek euh, waa Paris nekk fii di raté Paris rek Paris Paris Paris daanaka à part am na benn bu Hakimi am boo xam ne boobu moom waroon na koo dugal mais à part ça man fàttaliwuma occasion yu garaaw yu garaaw yu Paris da doon toll fële di door rek mais fàttaliwuma occasion yu garaaw yu Paris am de à part bu bu Hakimi boobu daanaka mooy loolu de da ko ëpp ay tir rek mais occupé occasion yu yu leer de pour dugal daanaka mooy loolu quoi ah man de loolu la yow très loolu loolu gis.
ah am ngeen kay def ngeen débrief bu gaaw foofu de am na ci yoon ah ey genre trophée yi la Neymar doon gagné dégg moo tax trophée yi bëgg
léegi loolu ko si Neymar foofu.
ah déet yaa yaa fi doon naan Neymar nangam moo ëpp trophée Salah nangam sangam moo daa bëggoon loolu bëgg a wax rek.
waaw trophée yi genre trophée yi la ba xool la dañu may wax ci mbor bi ci yow de.
genre trophée yi la daal ah i maa ngi ni may bëgg leen ngeen wax si trophée yi ngeen naan ay jël wax nangam lii du ko fu nangam sangam ñu may wax ci baa du ñu bëgg.
moo déet man kay dama la wax leer na trophée yi moom jarul wax ah nañ dem à part ça Liga gé nañ tamit ngeen loolu boo ko waxee damay damay damay bañ ñu ñu kii tëj suñu canal non man li ma la wax leer na dama ne carrière bu Salah moo gën carrière Neymar man loolu laa fa wax waaye kenn du la ci non topp.
carrière Salah moo gën carrière Neymar man foofu laa wax Ah, dañuy dégg baax passe bi na. Loolu sa xalaat
non waaw man sama xalaat la mais man teg naa ko fu leer nañ
loolu sa xalaat waaw.
teg naa ko fu leer nañ eh ñoo wax si marché yow
Oh, dama naa si marché ah yow marché sa équipe la non Inter SA yi faral ko Arazo la waxal si marché yow arrangé wu na borom jot li dama seen gi mu koy faral da rek laa xam da rek laa topp waaw la wax ci 5-1 yi nag dégg nga eh waaw Barça yi gën a na Barça moom saa jàmm équipe bi ngaa jëlee ci kii quoi ah mais dara ah Barça moom genre comme ni ma ko yàgg waxee rek seen coach bi des fois dafay waane quoi de- deuxième Hmm.
des fois dafay waane quoi mais bu defee yëfe nit moom Barça yi moom loolu équipe bi bien vrai que équipe moom moom loolu équipe bi leen fola mais Mopé temps yi mi ngi dugal de attaquant si jëy waaw CJ sa sœur bi temps yi mi ngi dugal ah mais Hm?
Ay, ay genre équipe yi moom ah. Nem bàyyi mu sedd. Grawul.
waaw luy loolu yéen tamit yéen yéen yéen liy tax gars yi di yéen yéen yéen yéen yéen confirmer li gars yi di wax quoi yéen a ñàkkal fayda France mais France temps yi temps yi ñu ngi gérer te man Marseille li ma jaal si ñoom mooy ñoom chaque jour dañuy génne jour bu bees da ngay seetaan match keek saa yi kenn dugg ko xam ne mosoo ko dégg naan kii fu mu jógee ñoom xanaa ñoom xanaa ñoom xanaa effectif bu trente personnes lañ am ñoom bëri nañ ay joueurs de ah chaque jour ku bees génn ah ay Gavi ay Bakola ay Rowe ah. temps yi Merlin moo moo moo nekk di performer ah milieu terrain bi su ñuy changé rek tey Nadir ak Rongier lañ teg beneen beneen zone ñu ñu ñëw teg Kondog bi ak keneen.
Roger bi nee ba dugal Roger xaar lu mu mujjee dugal xaw ba mille neuf cent.
non ñoom yow si boppam Marseille est-ce que mas naa teg ña- benn classement teg ko ñaari match consécutif ren du yaakaaruma ko non suñu waa ji dañu waroon woo sana nag mu ñëw wax si mais Marseille moom gaw ma ne mas génne ñaari match teg même classement si ñaari match yi.
ah désert bi daa waane.
ñoom dañuy changé rek dañuy jëkk saa indi beneen jour boo xam ne footballul sax ñu ñëw teg ko ci leer ñoom di testé ah baax na contre contre Le Havre moom mën naa marché mais sinon mooy loolu de ah yeneen match yi Lyon dóor na Montpellier 1-0 91e minute lañ ko lijjanti euh, Lille daa match nul ak Nantes 1-1 euh, ak kan ah Nice Nice tamit instant yi kii na ah Nice Nice mi ngi mi ngi mi ngi fight pour kii bi de. pour quatrième place bi de ñoo door ren 3-2 ah waali Casamance dugal na Soufiane Diop ak kan ah Strasbourg Strasbourg tamit door na Auxerre 3-1 euh, Habib Diarra door dugal na penalty tamit waaw ah France mi ngi noonu ah loolu leen wax yéen ci yeneen match yi ci France si jëy loo wax si gaay
gars yi ah moom moom xam ngeen bu baax li may xalaat ci Ligue 1 moom donc maa bàyyi treize wax mais Brest tamit Brest amagul victoire amagul victoire kii or këram de benn waa bo- benn victoire la am or këram ci ci ci championnat bi yëpp Brest gagne nekk Champions League di toj gagne ñëw fii gagne di bandi bandi France ñu koy wulli Brest de heure bu génnee stade am moom mooy door nañ ko moom moom moom mooy loolu doy na waar de ah ak lan waaw ak yeneen championnat championnat Sénégal tamit jé nañ su dee résultats yi euh, amoon na match entre Casa Sport ak Pikine Casa Sport door 1-0 euh, Génération Foot door Linguère 2-1 euh, Wali daan match nul ak Wakam 0-0 euh, HLM euh, euh, moo perte contre AGEL de Rufisque 1-0 euh, Gorée door Sacré-Cœur 1-0 Oslo tamit door Sonacos 3-2 de classement bi instant yi Gorée moo nekk si kaw moo ngi commencé sori nit ñi sax ndax instant yi mu ngi si 23 points deuxième bi nekk si 17 points muy wàlli daan donc Gorée tamit gain daa mel ne moo ngi si de daa mel ne moo ko nar a jël de li moom fooguma ko woon moom franchement moom maa ngi yoon si jaraaf mais jaraaf moo nekk troisième quoi insi bi mooy loolu on verra nu muy demee waaw bala ñoo dem rek CJ su ñëwal wax ci kii mooy joueur sénégalais yi la gën a impressionné si week-end bi rek
ah waaw joueur yu ma gën a impressionné ci ci weekend bi kenn ki John Lobby John Lobby moom gars yi xam nañ ko bu baax te keroog la doon jouer seen ci dem di final coupe de roi contre Séville déjà déjà équipe bu deuxième division contre euh, équipe bu première civi- division lañ doon jouer te def na match bu bu yéeme def costaud déjà mi woon taw fu nekk léegi léegi aw te moo téye seen milieu bi quoi moo téye milieu Elche te waaw mun naa ni mun naa ni mu doon téye kii bi équipe bi quoi benn instant moom moom saa yi eh, tey Elche yi saa yi nii ñoo nekk ca kaw te yaakamti nañ mun yaakamti nañ ko gis mu yéeg quoi ni gën a am visibilité quoi ndax gars yi gars yi dafa mel ni ñu ngi koy commencé fàtte mais foo ñu bàyyi ko xel moom tamit. war na mën a am place ci suñu équipe nationale keneen keneen koo xamante ni xaw na ma impressionné mooy Mamadou Loum mi ngi championnat portugais moom ci début saison bi ay blessé ñoo ko xawoon a euh, ay blessé ñoo ko xawoon a son- sonal ba pare changé euh, changé équipe nekkaat demaat ci beneen équipe am war a am temps pour euh, adapté wu affaire yooyu mais mm, gis naa ni dernier mois bi mi ngi ñëwaat quoi mi ngi ñëwaat di am quelques minutages di ñëw jël équipe bi amee tamit moom tamit ku mën a Mamadou Loum moom mi ngi woon ci équipe nationale deux mille vingt et un waaw champion d'Afrique la waaw moom champion d'Afrique la donc euh, gars yi tamit war nañ ko bàyyi xel quoi tamit benn instant.
treize yoon nag Ba mbaa la ñu ah man de moom Abdoulaye Seck moom nga lu tax duñ ko tudd jamais man jaaxal na ma Abdoulaye Seck bokk na si défenseurs yi gën a baax ci sénégalais yi te kenn du ko tudd Abdoulaye Seck tamit gaay war nañ ko delloo delloo kii de dañ ko war nañoo wax si moom de waaw war nañ ko jox gëddëm de ndax moom essay xëy na championnat bi mu nekk sax tojul torop ndax mi ngi kii Israël Maccabi Haifa mais moom gaay déjà match bi passé rek bi biñ seen son son seen victoire contre beneen équipe bu Maccabi bi ñoom moom performance bu rëy la def te tamit moom dafa masa dafa masa kii quoi dafa masa constant moom défenseur bu physique o- old school la maanaam défenseur yu njëkk yi nga xam ne ñoom ñu ci boole wax ju bari ay technique ak yooyu ñoom lañuy ñëw nangu sa bal xam nga dal sa kaw su yéegee moom day yéeg mbëkk di dugal te tamit moom jamais ñu tudd ko quoi même équipe nationale sax dafay ñëw def performance yu yéeme coupe d'Afrique bii passé performance yu yéeme la def mais kenn du ko tudd quoi et cetera donc moom moom war nañoo wax. ah euh, à part à part war na kii war na changer équipe ndax foofu moom kii équipe bi moom mi mi dëkk boo xamante ni existé wul dëkk boo xamante ni ah non ay dëkk yoo xam ne ay dëkk Israël moom taay amul fenn moo tax am naa xaw a ñàkk visibilité quoi.
waaw ak kii tamit euh, Aliou Badji tamit euh, attaquant wu Red Star bi moom tamit mi ngi France deuxième division bi niñ ko faral di waxee rek deuxième division France bëri na ay talent sénégalais moom tamit euh, waaw euh, def na performance bu garaaw ci week-end bi euh, donc moom tamit attaquant la boo xam ne war nañ ko bàyyi xel quoi ndax ñun daanaka Sénégal problème bu buteur lañ am te moom day day dugal day assurer ay bi voilà donc moom moom franchement waaw war nañ ko war nañ ko gën a surveiller quoi moom moom kii la jour buy jour buy dugal la quoi donc man moom ñoom ñaar laa bëggoon wax.
ah man de Samba Diallo laa bëggoon wax Samba Diallo gars yi nee na day dem jouer Guinée quoi.
Samba Diallo Guinée lu mu fay def.
dem na Guinée.
non.
wala bu jégalu woon nag ba yégal leen ko quoi man daa xam naa ni moom mën nañ jaaree foofu tëj épisode bi quoi. Samba Diallo. bàyyi na suñu équipe nationale. dem na Guinée mais gis naa ne temps attends attends nga dama lay arrêté de dama lay arrêté de bul bu fi joxe bu fi joxe ay kii de ay faux faux kii de moom ñëw na ñëw ñëw na moom ñëw na démentir lool ni news boobu de ah oui.
non saay loolu moom ñëw na ne wax ni moom musul genre Guinée woo nañ ko ci Jeux olympiques yi mais néew na day jël temps xalaat quoi mais moom nee na musul nekk ci xelam quoi moom mii Sénégal la mës a kii la mës a euh, foofu la màggee te Sénégal rek la xam moom mii xaar ba léegi Sénégal woo ko quoi loolu la loolu la ñëw wax.
ah bu dee noonu la de moom tamit ñu jël de. waaye non saa yi foofu foofu moom foofu moom Pape Oumar Keita moo moo suñ grand bi suñ grand bu baax bi moom moomu ci wóor moom moom moom man moom moom rek laay topp kii di Fabrice Romano ak Pape Oumar Keita rek ñoom rek laay topp moom ñoom ñu moo génn eh, génne nouvelle bi quoi démentir
ah bien ça moom daanaka gagné U17 gagné U20 donc ah nagam boppam rek travail rek moom la la wax niveau maanaam ah donc gars yi moom la dépend ci moom de.
non Samba Diallo moom talent talent la.
waaw dafa ñàkk sens parce que genre guerre bi moo commencé traiter tamit wala équipe bu baax tamit équipe boo xam ne daan na compétir en Europe quoi donc actuellement nii moom genre mooy demoon na Israël suñu biir fom.
Ouais.
ban équipe Waaw.
moo ni ah Samba Diallo Samba Diallo.
moom mi mi APOL APOL Jérusalem
ak waa Jérusalem ñu ngi ñu ngi Israël wax tamit donc.
Ouais.
na na na defaru rek na defaru rek gars am nañu espoir ci moom na gëm boppam rek liggéey rek ñëw jouer place am rek comme ñëpp rek équipe moom de équipe bu kenn.
ak Massamba Ndiaye sa waa ji.
Samba Ndiaye mooy toj France de.
ay Ligue de moom saa yi mooy loolu ah.
Massamba Ndiaye gaay na Massamba Ndiaye.
gardien bi moom gis naa ne moom Yvan Diouf bu ñëwee ah option yi dina commencé bari de Massamba Diagne bi tamit war nañoo xool ay mbiram indi ko quoi moom tamit xool li muy joxe penalty de ay na si moom dégg naa
non non moom tey depuis depuis saison bi kay mi ngi def ay performance yu yéeme di génne ay def ay arrêt yu graaw tamit même match bi passé rek ay génne na yu- ay génne yu graaw tamit donc moom tamit mais ci deuxième division France moom man même pas talaa yu dul jeex moom état sénégalais yu dul jeex non gars yi dañ koo xeeb mais par exemple bi ñuy gagné coupe d'Afrique Saliou Ciss deuxième division la nekk bi bi mu commencé gagné ñu naan kii fu mu jógee nangam sangam mooy loolu amul dara mais mu commencé def performance bi yéeme ba gagné ba voté ko meilleur latéral ci coupe d'Afrique bi après gars yi soog a ñëw mais France France war nañ ko bàyyi xel de waaw.
am na si loo xam ne moom même bi Sénégal génération 2002 bi et cetera ñoom dañoo mës a am ay talent.
mais par là par là ci góol yi tamit Aliou Badara F- Aliou Badara Fati ñu champion d'Afrique bi tamit moom moom dug dugal na bii de seen match bii passé penalty waaw waaw eh, championnat tan xaw ma Tanzanie la nekk xaw ma du xanaa dernière minute la yeeg mbëkk.
ah non dernière benn minute.
coupe d'arrêté kay leen leen jox mais moom mais moom mun na dóor bii de moom moom Ah.
kii moom waaw ah bon ah soxla nañ ko moo gën moo gën ñi ñi door suñuy kufraade ay gaan ak ñooñu gaañ di forcer ay kufra waaw mën naa am na koo xam ne moom saa yi miin na suñu pass bi trop mais neexul ba neexul mais mi ngi ci niveau bu yéeme mi Ismaïla Sarr Iso doomu ndar bi ah.
ah non derrière Mahmoud mi ngi performer quoi. xam nga non ko ça dépend rek absence la rek tey si domaine non ça dépend rek déedéet yooyu moom bit moo du ma ko nangu man moom maa ko fi dàkk Loolu xas gis nga ko.
waaye waaye dernier mois ce dernier dernier mois moom saa yi ñu performé bëgguma ci woon a wax léegi ndax peut-être c'est trop tôt quoi bëgguma bëgguma ko da da ko bañ bëgguma ko kii quoi mais yéen gars yi nii moom mi ngi ci mi ngi ci waat quoi a bañ a cat waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw donc nañ ko def nànk rek bu buñ ci wax buñ ci wax nañ ko bàyyi mu jaar rek nañ ko bàyyi mu liggéey liggéeyam quoi pour l'instant
ah waaw baax na kon euh, xam naa ñu jox leen rendez-vous jeudi incha allah euh, ñu ñëw wax si NBA bi gëj nañ cay wax te saa yi am na match yu garaaw yu nekk di daw ak kii tamit match yu biir semaine bi super coupe d'Espagne bi war naa war naa ju- war nañ ko jouer entre ju- me- mercredi ak jeudi ak euh, Carabao Cup bi tamit ñu ngi ciy jouer quoi donc yooyu yëpp dinañ ci ñëw wax si épisode bii di ñëw incha allah waaw kon dem leen aimer commentaire. euh, déglu épisode yi passé si YouTube bi tamit ak euh, xool suñ page yi Instagram ak TikTok ndax ñoo ngi fay dugal contenu chaque jour ah su ko defee xam naa fii ak kii rek ba jeudi rek incha allah jaajëf.